père Ndiogol chaque jour ba ñuy njëkk a xamante wala di gisee damay wax ne yow dama am chance bu sa papa da amoon chance boobu comme naan donc moom loolu da koo war beneen mooy moom meen ànd ku ne xam nañu kujj ak meen ànd moom ak meen ànd comme naan ah dafa ñëw këram yaa ngi dégg c'est pas la fois nga ñëw yaa ngi ñoo ngi fi mooy ngénte ñoo ngi fi sa combat say combat ñoo ngi fi ñu waxtaan waxtaan bu guddi yaag paa bi comme naan kon kontaan nañ a bokk ndey ak baay parce que ñoo bokk lépp Pikine lañ bokk te Pikine mënuñu séddoo ku ne mënu jël cëram donc dañ ko bokk mu rafet yow tamit nga nekk jàmbaar comme naan affaire yi lu mu mënti demee da ngay gérer parce que àdduna noonu la nit yi mënoo leen ànd chaque rek yoon bi di wex taal yoon bi mën na di ñuul pax yi mën na dugg mais lu mu ci doon rek yaa ngi gérer ab esprit grandeur bàyyi mu jàll sëgg mu jàll comprendre nga àdduna noonu la parce que carrière sportive bi yàgg na yàggul waaw am na suñu ay grand yi fi nekkoon dóor nañ seen wàllu dem yow yaay suñu mag jiitu ñu ngi sa ginnaaw sa wàll bu jeexee ñun suñu wàll ñëw ñun ñu jeexal keneen ñëw te Pikine dañuy ñàkk dañuy dañuy ñaan chaque jour mu am relève yu dëgër yoo xam ne ku dem ba fi keneen mu gérer comme naa donc yàggul moo tax dafa war di rafet ñu di ko di ko jëflante solo loolu dafa am solo parce que dañuy daje ci ay bés yoo xam ne du làmb tey daje nañu te du mm-hmm. dañuy sigg xoolante ci ay bët boo tax kàddu yi dañ ko sóor bu baax bu rafet bu baax ñu def ñu defante ay nawle parce que boo ko defee nawle doo ko wax lu ñaaw daal ak mën demee ñu defante ay nawle parce que dañuy sigg di xoolante te dañuy daje te yi àdduna yëpp yëngu-yëngu àdduna yëpp dafay jeex mais bu jeexee bu dëj amee wala ngénte wala ay yii bu amee dañuy dugalante gisante xoolante waaw te man ñaanuma sax war benn morom di sëgg donc daang damay dund ak yow da damay nekk lu naaj te loolu moom mës a jaadu te loolu dañ ci kontaan bu baax a baax yow nag da nga nekk nit boo xamante ni jarul justifié wu xam nga parce que nit ki moom ki nga jëflante rek moo la xam baay ki nga jëflante wul mënu la xam waaw jantar mel nga man du ma wax lii tey suba moo waaw mënuñu dégg ma wax ci yow leneen li ma wax ci yow tey moom laay wax ci ci yow mun noon xeexal tamit dóorante maa yow ñoo dugg suñu ko def nga def moom mais bu ñu bari mais loolu naagi amu fi parce que ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ngi lay ñaanal jàmm ni nga ñëw teew nii suñu papa ak suñu yaay juga màgg loolu amuñu ko gën a rëy nga teew ànd ak grand lañ ak moom tamit grand exceptionnel la yàqul dara parce que moom bu dama gère ñi say frère te loolu dafa naaj donc ñu ci sa combat bi nga xam ne taxaw moo ak tafaati yàlla na suñu boobu may la ndam waaw duñu jóg di taxaw duñu taxawee woon duñu taxawee woon chaque jour duñu jóg di taxaw noonu ñaanal na suñu moom dafa la ndam di kontaan bu baax a baax ci teew bi ngeen teew bi la lañu ci laaj Eumeu Sène nekk référence ci làmb mm-hmm. def geste bii nga xam ne nii geste bu am solo seen diggante yaakaar naa ne làmb gis nañ Eumeu Sène nit di teg ci dara mais doo ko dégg bu foyonte kenn chaque jour day wan ne moom exemple la mm-hmm. tey jii ndax loolu yéen nga xam ne yéenay nekk leader yi nga xam ne yéen topp ci ndax yéen a ngi ci jàng ay leçon pour waaw yooyu yëpp ay leçon rek te yooyu yëpp jikko la nag nit ki xam loo wane rek loolu moo ci yow te xam dañuy fexe comme ni mu ko wax rek ñuy jiwante lu rafet daal parce que dañuy daje te Pikine dafa xat fu ne la ñuy daje donc dañuy jiwante lu rafet ba kenn du gis sa daal man loolu laa jox conseil di ko jox sama bopp sax laa ko njëkkee conseil boobu ak gars yëpp yoo xam ne ñoo fekk laa ma ñoo fekk Pikine dañuy jiwante lu rafet daal parce que am na amul solo parce que sekk nañu lu nekk loo xamante ni duñ ko wax ngeen donc li nëbb moo ëpp lu feeñ donc dañuy fexe rek muy naaj quoi man loolu laa am looy wax jantal grand comme ni ma ko waxee chaque jour lu fi mën ci jaar dafay sëgg gérer te loolu mooy yoon comme naan ñun tamit dañu am pour tax ci gàddam bu baax a baax parce que ay rakam la ñu xam mais mu doxal suñu gàdd loolu a métti mais bu ñu taxee xam ne samay ñu koy la jàng ak ay doomi Pikine dëgg Pikine yaroo Pikine mag. boo ñaawoon li ma def daal di ko ñaanal bu baax a baax bu baax lépp fu waajuram ñaan yàlla na ko daal yàlla na sotteeku ci kawam. amiin yàlla nañu bokk ci barke bi. amiin amiin waaw rek kontaan naa ci yow trop trop bis bi am nga ndam daan sax. bis bi laa gën a kontaan. barke Seydina ka nga am ndam daan te li nga bëgg ci làmb yaa xam yàlla na ko yàlla dem ba yor korom bi ko fi incha allah yàlla yàlla musal ci seytaane musal ci bépp ndog-ndog yàlla suturaal la yàlla suñu yàlla boo am gàcc mukk amiin li nga def nii yàlla na la bi dal ñu des sa gidd am nag alaxira nag am incha allah parce que am na dafa gàtt am na amul ñu ñëpp benn waaw ñun dañoo am jaar-jaar dañu xam nga dañoo am jaar-jaar quoi dañoo am fu ñu jaar nit ki nag li nga am rek moom nga mën a moom mën a joxe waaw ñu sant yàlla nag bu baax a baax a baax wax ji rafet suma rek nga daa am jaar-jaar bu ñu jaar mooy fu ma jaar bu bari kon moom ay sànq rek sama rakk la moom xam na man xam na waaw ñu ngi lay ñaanal rakk yàlla jubal ak sa soxna ngeen am doom ba lii nga def nii tey sa doom fayee doo ko amiin ñaa man nag mënewu ma wax quoi waaw mënewu ma wax mais yàlla xam ne sa xol sedd na dëgg la Aziz waaw kontaan nañ ci bu baax dëgg la dëgg la jërëjëf ñu fi nekk yëpp gàmbaar waaw kontaan nañ ci jaajëf ok mais tamit tafaatin ndax ñoo gis nga doon bés mais dañuy gis ne boo ñaa moom nañ ko teg ne rek dañu gis ne boo ñaa dafa nekk sa rakk joxone nii ndaw loo ñeme la dafa gis mu nekk rek joo xam ne nii booy waxtu moom xam ne kii yëg-yëg ngay waxee mhm. loolu lu mu la digle wala lan moo nekk seen diggante ba ba loolu am na ndax dañuy gis ne bés am rek dañ bu gisul da lay gis. dana koy teewal ak côté bu mu mënti toll. lan moo nekk seen diggante bu loolu mën a. la rek kon nga koy mën a expliqué <laughs> waaw moom suma rakk la ba pare mu nekk rakk yoo xam ne vraiment rakk yu neex àndal la waaw vraiment macha allah daal. loolu ñaan yàlla suñu boppam mais macha allah. jox na ma cër. parce que man tam mosuma dépassé. wax dëgg yàlla xam naa nu moom moom quoi. suma rakk war ñu bokk kilifa ci Pikine yaakaar naa ne ndam yi gën a rëy ci Sénégal yaa ko indi loolu ñëpp mos bi fere naa ko tey jii yaakaar naa ne ñu ngi jëlee a nga Pikine en xam ne mer na ba wax na ëmb seen loo xam ne waru ko koo wax waaye gis nañu ëmb seen ak estafam kenn tontu loolu loolu euh, nan nga dundee loolu nan nga dundee loolu ñun ay jaamu yàlla yi xeebu lañu ay jaamu yàlla xeebu te dañuy rëcc Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jaamu yàlla bu xeeb la te àdduna dafa gàtt àdduna amul solo nit wax na dara pare di ko bu demoon tey bu ko araatu di ko def waaw toujours loolu yàlla xam ne bu ma saw wax dégg naa lépp nag jot naa lépp mais tam aussi jullit laa te jaamu yàlla bu xeeb laa mm-hmm. damay jégale tey jëlee di dëgg waaw pagaat naa mu sol yàlla suñu na quoi mais boo amoon message boo xam ne koy lancé ci ndaw ñi nga xam ne dañuy taxaw ci média wax loo xam ne ni ëllëg dañ koy rëccu yan message nga leen wax waaw xam nga tey li lay rek mooy que nit lépp loo mën a am te amoo yar amoo dara nit ki am na alal ñu baraka ak alal yu duma. Mhm. nit am na kàttan yu baraka ak kàttan yu duma. Mhm. nit yor na daraj yu baraka ak darajam duma. Mhm. mais nit ki yaroon na ñu baraka ak yaram duma amul fenn musta am waaw amul fenn waaw ñu ne ko lu ñu wax rek ay tuuma tuuma la. dëgg la gor la. yàlla dëgg la ñuy tuuma may nangu ginnaaw julli ak joxe ñam. tuuma mooy li gën a gaaw a ramul ci àjjana. Ah, waaw kon tuuma dañ koy nangu. la. waaw ñu di baax ñëpp bu ñu xoolee Seydina Muhammad rek dara dootuñu métti waaw loolu la bilaa bu ma sax tontu am na loo xam boo ciy tontu sax da ngay doo da ngay nekk doo man mhm. waaw tamit dañoo macha allah sant yàlla daal bu baax macha allah yàlla moo sàkk doomu aadama ci ñàkk mat so mhm. deful heure bu ndaw di nga def bu mag boo deful bu mag di a a a baax